andil nañu biorahma ci mbokk yi woy ànd ak ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu fi ñuy baaxoo di dégloo saa su ne tey nag ñu daal di ñëw fii ci bërëb bi nga xam ne mooy seen cabinet biorahma. cabinet biorahma cabinet la goo xam ni dafay yëngu lu jëm ci wàllu bio di defar di distribuer ci réew mi ak bitim réew ngir mbokk yi saa bu ñuy tëwoo lu bio ñu daal di ko mën a am ci anam yu sell tëwoo mbokk yi ne duñu tàyyi mukk di wane di fàttali ndax suñu diine moo ñu may saa su ne ñu fàttali suñu biir ngir fàttali ki fàtte ngir xamal ki xamul ngir buñ sa jógee lépp lu ñu woo muy lu baax suñu làmboo daj ko ñu seentoo gis ko. ayuba see weesu wala weer yi fii daa ngeen seetaan ñu doon wan leen gaam bio cité dara muy gaam boo xam ne mi ngeen ko muy gaam boo xam ni waxoon naa leen ko la ko taxoon a jóg mooy lépp loo xam ni dafa jëm ci xeetu feebaru der nee naa la feebaru der yaatu na waaye am na ci yoo xam ni daanaka saa bu duggee soo ca jógul mën na laa indi jafe-jafe ci dund ñu di loon gamme boo xam ne woon naa la trois savon la benn crème benn huile ak li nga xam ne moo di tisane antifongique yi que ni xam nañ ko déggoon nañu prix bi mu yem ci ñaari junni waaye ñu indiwaat beneen boo xam ni mooy mu hémorroïde xam nga ne hémorroïde saa su ne dafay dund ak ñun muy cër waa am solo boo xam ne moo ñuy gunge waaye yenn saay mu am lu ko dab ci yoon yi day bëgg nag moom tamit su ko dala dabe ñu mën koo gunge ak ñaari tisane ak benn crème ci demi yamuñu foofu ñu daal di indil leen leneen loo xam ne mooy bioformant xam ngeen ne yenn saa yi nit ki jóge ci feebar bëgg noddantiwaat yaramam wala nit ki jékki-jékki sentir ne moom daal am na lu màgg ci moom ñu daal di indi protéine bu naturel muy bioformant waaye yamuñu foofu dañu indi euh, crème jongoma boo xam ni la ko tëgg mooy lépp c'est naturel nee naa lu naturel saa su ne der da koy bëgg gémmiñ da koy bëgg moo tax saa boo ko diwoo foo ko diw fu ne mën nga caa gis la nga bëgg yemuñu foofu ndax xam ngeen ne der bokk na ci la ñuy njëkk a gis yenn saa yi nag mu am lu ko dab ci yoon yi moo xam pollution alimentation feebar wala leneen loo xam ne nit ki daf ko doon def ngir rafet mu am njeexital lu koy indi mu ay cere moo tax ñu di leen seen gaam boo xam ni dafa baax ci wàllu cere muy saabu ak deux soo ko dee def yow sa bopp da ngay nemmeeku ne li ngay def baax na waaye yemuñu foofu ñu daal di indiwaat ay tisane yu amit solo yoo xam ni daf lay yokku énergie énergie tax na saa ne loo bëgg def lu ne daal di ko mën a def kon mbokk mi seetaan ak déglu am ci leneen loo xam ne dañuy dund ak moom muy douleur musculaire arthrose nerf sciatique wala yeneen yu ni mel moo tax seen cabinet ma bàyyi la mu jàppoon daal di indi la fauteuil de massage bi nga xam ne soo ca toogee fa muy tàmbalee ndiggil li faar yi bopp bi tànk yi yow ci sa bopp boo ca jógee da ngay xam ne daal fi ma toog baax na yemul foofu ñu la machine boo xam ni soo ca say tànk xam ngeen ne tànk dëkkandoo yu bëri fa la ñu logé lu ca yëglu ne yaram da koy yëg lii yëpp mooy ay pexe yoo xam ni dañ koy daal di indi mbokk yi dañuy laaj saa ne ay savon curcuma am na thym clair thym noir ak lépp loo xam ni dafa baax yamuñu foofu ñu daal leen indi leen ay sirop yoo xam ni c'est bio c'est naturel ndax estomac dañ koy dund wala asma wala yenn ñu mel ak ay produits yoo xam ni c'est base bio xam ngeen ne fenugrec am nañ ko kigelia africana sebér bukki ak yeneen ni ni mel xam ngeen ne cabinet bio rahma yamul fii rek ci Tëngéej ci Sonadi ci wetu pharmacie Asel waaye dañ koy yaatal mu yaatu ba mbokk yi saa su bu ñu itteewoo li ñu daal di ko mën a jot ki nekk njaareem saa su ne day ittiwoo li ni mel am na njaareem am na Saint-Louis am na Kidira am na Louga Diourbel Touba amit Mboro Kébémer ba Gambie waaye amit foofee nga xam ne moom moo di Saint-Louis am ba Mauritanie am ba Casamance waaye ñu daggu nank ba Réfane dugal du fa dugal kon yow mi seetaan tey déglu te dañu bàyyi xel jàppal ne lépp loo bëgg xam ci wàllu cabinet bio rahma lépp lu baax ci nit gis ngeen ay gaam cheveux yoo xam ne dañ ko daal di indi xam ngeen ne gone yi tamit dañuy saxal karaw waaye yenn saa yi am na ci huile yoo xam ne bu ñu ko laalee mën na leen indil ay njeexital moo tax seen cabinet biorahma indil leen gaam goo xam ne dañ ko jagleel gone yi muy gaam goo xam ni daanaka dafay baax ci ñoom surtout tànk yi ndax ñoom tamit dañuy bëgg seen karaw sax sax goo xam ne du leen indil benn jafe-jafe noonee mu amee ci mag ñi noonu la amee ci gaam ci gone yi ñu indiwaat beneen boo xam ne ay savon la indiwaat beneen ay shampoing indiwaat damit ay savon rapido indiwaat savon tulukuna ak huile tulukuna savon huile tulukuna soo ko bëggee xam demal ci chaîne YouTube biorahma 77 244 90 05 kon mbokk yi lii la ñu indi woon tey yéen jox dox daje ba yeneen jamono jaa ngeen jëf